déjà dama ñëw en tant que jigéen euh, mais dama ñëw aussi pour encourager ces femmes parce que xam nga bu njëkk ba jigéen buñ daan daje xew day am rek ñu wooñu ñu nekk ci ginnaaw di di di di di animer la galerie di leen amuser voilà léegi nag tey bi ma am Ameth waxee que dafa am ay projet yu am solo à hauteur de 3 millions yoo xamante ne ñoom euh, dañ si liggéey ak ñiy financer pour ñu mën a jàppale ces femmes qui son là ces femmes transformatrices dama kontaan parce que xam nga ni aujourd'hui ñëpp xam nañ jigéen seen taxawaay ci àddina mais xam nañ tamit que c'est pas évident que nekk na xeex boo xamante ni vraiment 8 euh, mars kese du doy mais nekk na une date boo xamante ni dañuy mën a teg baaraam ci li nga xamante ne moom la jigéen bëgg teg baaraam ci droit des femmes teg baaraam ci li nga xamante ni daal moom la jigéen war a def war ko jàpp surtout ci réewam pour mën a aller de l'avant maanaam du yomb parce que jigéen ñi ñëpp xam nañ ni am na financement wala yenn poste yu bëri yoo xamante ni daal dañ cee néew kon formation professionnelle dafa am solo te loolu day tax maanaam dëkk mën a dundee ci koom-koomam parce que tey li yàq ci fruit bari na jigéen yi fi toog amuñu benn formation bari na te naam suuf saa ngi fi am nañ suuf suuf bu plat boo xamante ne ñun ñëpp mën nañ si liggéey kon aujourd'hui bu ñuy sensibiliser bu ñuy def ay concours yu am solo yu mel nii day tax jigéen ñi gën a fédéré jigéen ñi day tax ñu créer ay réseau de femmes ngir vraiment ñu mën a jàppale seen ay projet une fois de plus c'est très important waaw xam nga loolu comme li may wax dañ ko dañ ko dañ ko tëkkalee jigéen mais je on sait tous que les femmes valent mieux que ça voilà jigéen tey boo ko mayee doole moo xam ki jàng wala ki jàngul li muy def dafa am solo mooy tey jigéen même bu jàngulee boo duggee këram ni muy organiser kër gi ngay xam ni kii vraiment c'est une femme responsable boo xam ne war nañ ko mën a jàppale rawatina nag ñi nga xamante ni dañoo am liggéey waaye bu ñu wàccee tamit dañuy dugg seen biir kër maanaam jigéen tey waruñ ko yemale rek ci fecc sañse maquillage dem Mumbai dem dem xumbaay ak tàccu waa xam nga toute forme de de violence ñun dañ koy condamner mooy bi ñuy def jigéen bi ñuy def góor bi ñuy def xale et cetera mais violence faite aux femmes dafa nekk loo xamante ni en fait day reyee day reyee jigéen yu bëri ñu ngi dee seen néegu sëy te daanaka du ma ne sax kenn du ko kenn du ko faj mais niñ koy fajee dafa néew ñaata jigéen nañuy violer te amul amul suite ñaata jigéen nañuy nañuy agressé verbalement ñaata jigéen parce que agression nekkul seulement ay dóor saaga agression la ngay buntu xataal jigéen fi muy liggéey agression la. dafa nekk daal ay xeet yoo xamante ne tey muy Sénégal di Abidjan di Afrique di monde bi ñëpp dañ ko war a booloo xeex voilà parce que tey tey jigéen je pense que war nga si mën leneen lu dul dóor. te ñiy def loolu je pense que dañoo am benn faiblesse góor bu faible rek mooy dem ci ci ci violence. dafa. non xam nga. ni ñu jàppee activisme Sénégal euh, loolu pour man nekkul activisme parce que tey ñun ñëpp ay activiste lañu. parce que tey boo xëyee ngay dox ci mbedd mi di gis suuf si bari pënd boo diwee sa tànk mu takk loolu a neex kon tey kuy jug di ci wax di laajte ana xaalisu dëkk bi lan nañ ci liggéey ana pavé yi ana ana ana wàllum bay bi. formation professionnelle loolu nekkul contre le être contre le gouvernement bien au contraire c'est être un citoyen être une citoyenne qui a des à faire valoir des revendication yoo xam ne nit ñi dañ ko war a dégg léegi nag ku jàpp ni kii dafa contre wala dafa dafa daf ñuy xeex sa xel moo tollu foofu parce que nit tamit nañ waxante dëgg am na lu baax am na lu bon mais tey Sénégal am na lu bari loo xamante ne peut-être bu fa dutoon baaraam ba surtout côté agriculture surtout côté élevage loolu lañ am loolu lañ moom te am nañ chance Sénégal ba nga xamante ne suñu suuf baax na kon aujourd'hui dañoo war a dugg ci formation professionnelle jàngal xale yi nu ñuy bayee nu ñuy transformer nu ñuy jaayee. man loolu laa gëm daal maintenant il y a des choses yoo xam ne bu ñu ci d'accordul nga nekk porteur de voix c'est un choix soit nga noppi nekk dans ton dans ta zone de confort doo ci wax wala nga mel ni man rek boo gisee loo xamante ne daanaka euh, euh, jàpp nga ni yéenewul maanaa yàlla may la kàddu ñu lay déggu da koy wax ci njëkk ak teraanga non en fait je veux dire yomb na yombul parce que xam nga ni Sénégal mooy loolu quoi Sénégal mooy loolu yomb na yombul yomb na yombul mais li am solo xam nga lan la mooy na nga bokk ci ñi nga xamante ne dañuy doxal réew. na nga bokk ci ñi nga xamante ne lu ñu la mënta waxal ñu ko fekk ci yow na nga bokk ci ñi nga xamante ne dañuy xëy di jéem a avancer loo seen bopp. parce que boo demee ba réew commencé jaxasoo ni ngay def mooy dellu jël recul liggéey yow. parce que wax ju bari joo xamante ne yow xëyoo gontoo tamit nañu waxante dëgg voilà doxalu réew man noonu laa ko jàppee quoi man noonu laa ko jàppee pour man ñëpp dañoo war a engagé li nga xamante ne noonu la Sénégal di doxalee parce que boo ko deful ñeneen ñoo ñëw def ko dugg ci dëkk bi duñu am benn programme caxa-caxatee dëkk bi yow jeunes yi ngay toog di xoolee voilà mais mooy li ma la wax xam nga tey man bu école am na yoo xamante ne maa ngi dégg ay xale Kédougou xaw ma suma juumalee ñu koy wax naan nañ wàññi programme bi parce que école léegi lu ñuy jàngale du ñu jàngale li nga xamante ñun moom nañ moom wala mooy suñu histoire maanaam duñ fa duut baaraam te loolu baaxul day tax xale bu ñu màggee ñu am complexe man par exemple sama xarit Cheikh Oumar Sy d'ailleurs ak Idrissa ñoo ñëw ne ma écoute fekk ma amoon xaalis bu takku boo xamante ne takku na takkuwul ba takkawul sax laay wax <laughs> dama naan takkawul balaa du noonu ma mën laa doo doon waaw ma am tuuti fon boo xamante ni waroon naa ko mën a def dara may xalaat lan laa war a mën a def ñu woo ma ne ma jëndal nag boo jëndee benn nag bu mille nga yar ko dinga ko mën a jaay 350 400000 bi ma xoolee calculer ma dugg ci am ci amour parce que xam nga jur borom xol moo ko mën parce que da ngay dem ba danga koy jox ak xam jox ko yelleefam je me suis rendu compte xale yi kenn du leen jàngal mooy maa koy répété waat muy formation professionnelle mooy boo amee temps lan nga war a def parce que jàng durant des années nga am bac à 22 ans jékki-jékki euh, nekk université génn fa à 25 27 ans nga de war a liggéey lu ñu lay laaj lan la lay laaj ban formation nga am wala ban xam-xam nga am. léegi koo xam ne mësul tàmbali du doom xam-xam kon xale yi nañ leen may chance ñu mën a dugg di jàng. di liggéey di jàng di formé wu nga xamante ne bu fa génnee même bu ñu amul liggéey dinañ mën a defar seen bopp man loolu nañ ma jàngal moo tax bi ma amee as lu ma am ginaar ak nag xar moo may rey fu ñu toll nii waaw lu ma am moom laay dem jënd te incha allah bu ko yàlla nangoo lu ma amaat leneen ci bénéfice damay jënd suuf di bay comme ñëpp voilà dañ ma ko yéex a wax nag mais maa ngi si trouvé sama bonheur vraiment yow yow journaliste yi dañoo mën a laaj man léegi waa Sénégal vraiment maa ngi leen di souhaiter yéen tamit jigéen yi fa nekk ñoom Aïda vraiment sama rakk jooju yéen ñëpp maa ngi leen vraiment une bonne fête 8 mars bi yéen a ko moom yéen a ngi def liggéey bu set bu am solo kon nag vraiment Sénégal gàcce ngalaama rawatina nag techniciens yi nekk ci ginnaaw en tout cas on vous remercie beaucoup <laughs> et même surtout merci à Ahmed non am c'est-à-dire que c'est jeune man wax naa ko ko dama ko naw parce que xam nga léegi dëkk bi buzz moo sonal nit ñi ñu suñu génération buzz yooyu amul woon mooy da ngay liggéey def lu rafet wax lu am fulaak fayda mais léegi buzz tax na que nit ñi dañuy gis lu ñaaw dañuy gën a dugal dañuy gis nit dañu gis sa lu rafet dañuy gis tout le temps erreur yi ngay dem ngir mën ko metre en avant inciter gars yi ngir ñu mën a xas la waaye nit day juum am na lu baax am na lu bon Ahmed mi tey jeune la certainement il a fait des erreurs dans sa vie mais man loolu du ma intéressé xam nga lan moo may intéressé Ahmed mi nga xamante ni day def émission ci njëkk ak teraanga très correct comme garçon te fu mu gis mu am ñagas-ñagas day ñëw di ko defar man wax naa ko ko bi ma ko xoolee loolu laa ko jàppee xam nga mu nekk ko yaru ku baax koo xamante ni rawatina nag engagement yi muy am ci dëkkam on l'encourage waa Ahmed bu bëggee nekk maire dans quelques années mu fekk mu pare pourquoi pas xam nga lu tax. xam nga lu tax non non àddina dafa gudd tàng war nga kaa mën a nekk xam nga lu tax. nekk maire mooy lan nga ñëw xool dëkk bi nu muy doxalee nga ut ay fonds ñëw liggéey sa dëkk c'est que sa voilà. kon yal na la ko yàlla defal bu nekkee da nga ko bëgg dans quelque années ba pare sa cumbukaay na mat doom nday sa cumbukaay na mat.